Mm-hmm. gëstu yi masque wax nañ ko ba pare. Mm-hmm. waaye am na beneen gëstu boo xam ne ne. Mm-hmm. moo ëpp solo parce que même bu Covid bi jeexee jeexee dañ koy soxla. mooy que la loolu la loolu wax noonu. foog nga ko ko. ndax daa mel ne moom moom mi. loolu maa ngi koy wax suñu Mouhamed sax. mu ne raxas loxo. am na na ñoom luñ ci expert. Ah, parce que ñaari gëstu si àddina bi si am. ci loxo moo ko teg saabu ordinaire bi ñu raxasoo ki dikk raxasu am na ko raxasu yi ba set jàll keneen dikk ndax microbe bi da ciy des ba mën a wàll kii dikkaat du ko wàll moom du téye microbe du ko wàll kon mbooloo mën nañ ci raxas waaw te du te du aajo kii raxasuwaat raxasaat sax kooku ku la ko war a xamul. ok ah, loolu la hmm. moom mën naa la moom maladie infectieuse. loolu nag moom laa doon ko comme dong yi ba leen jëndalee benn saabu ordinaire mën nañ cee mën nañ ko toog ba mu. ñoom ñëpp tak ah, ñoom ñëpp. li am solo daal mooy. Hmm. ku si def loxo nii ba mu kii. raxasal ba mu set rek. la loxo ndox ndox ndox mi ngi koy raxas yi jërul def eau de javel. jël ko. Hmm. kon eau de javel lu muy jaay. eau de javel yi xam nga lu muy jaay. da koy gën a gaaw a rey. mais eau de javel bi moo koy rey saabu bi moo koy rey. maanaam maanaam kii euh, doomu jàngoro bi loo xam dafa am alcool soixante dix degré. Mhm. moo koy rey. donc bu kon alcocel yi nag. alcocel yi soixante dix moo koy rey. xanaa kon alcool yi ñuy fajee na ci pharmacie yi. da koy da rey. moo ci gën waaw bu la neexee nga am ko. bu la boo amee alcool soixante dix. Mhm. saa bu la ñëwatee saafonte nga jël def ko ci. bu neexee ci gën a yéeme. fi moom la daa def. bu ñu maanaam bu dee màggal wala dara bu jógee ci mbooloom. alcool yii kër docteur di yor. moom laay gis mu laal ci loxo yi. du tey nag bu duggee bu duggee ci biir ñu indi raxasukaay ak saabu ordinaire mu raxasuwaat. ndax lii may ëpp na fa ne xam-xam de xam-xam. gis nga ñaari benn bi mën naa ko def Sénégal. Mhm. dama dem si àll bi àll Saloum bi. Mhm. jël fa ay ñaari village mhm. benn village bi ma xëy. tout le temps di leen dox saabu. daan ne xale yi na ngeen fay xale yi saabu bu ñu xëy yow di jàngi. moo xam dañuy dem daara wala dañuy dem école. ñu sang leen raxas leen. bu ñu jógee ñëw bala ñoo laal dara ñu raxasu saabu. ñu def ko at leen xool. Mm-hmm. dañ ko defee mm-hmm. ba at mi ñaari at yi jeexee mm-hmm. loo xam ne jàngoro loolu muy am biir buy daw buy buy nekk biir ay nga xam yi dafa wàññeeku de cinquante pour loo xam ne ne feebar feebaru kii la euh, sëqat mooy sëqat sob xuréet affaire yooyu dafa wàññeeku trente pour cent loolu rek ci ko fenn lañ ko fépp te benn étude boobu moo am Afrique. ku si wax saabu nag boo tudd étude boobu nag xam naa si daal maanaam nañ def fépp foo xam ne dafay dajoo. waaw lu am important la ndax ndax fi ne nag ñu ngi ñu ngi mobiliser ñu ngi sensibiliser ci ma masque yi. ba xaw a fàtte raxas koy. loolu tax man nag moom moo tax man. du mat a bàyyi non non du mat a bàyyi la. parce que parce que raxas bi dèjà xam nga da ngay am hygiène. Mm-hmm. yow sa hygiène bopp. Mm-hmm. mais boo koy boo koy utiliser def da nga am hygiène collective. Mm-hmm. parce que euh, même feebar yi. am na di yarawut am na fu muy waxee sax bi ñu dañ ko doon compter. Mhm. mu ne leen feebar bi. Mhm. wàllaate bi du gaaw si nii. parce que nee na mi ngi ñoo silusi silusi ba nga xam ne mhm. jii boo doon tisoolu doo taxaw di tisoolu da ngay def nii. waaw loolu loolu am na ko njëkk nit ñi ne la. loolu nii la ñuy silusi. mu ne léegi xam nga fan la problème. mooy boo tisooloo da ngay indi sa loxo. boo paree joxoon joxoon muy yónte wala nga laal poignée bi. wala sëriñ bi waaw lay wàllee. saqat nag saqat ak tisi du ci gën a dansé ci wàll bi. ñaari benn waaw ñooñu benn waaw mètre daal du la wàññi. waaw du tànnee mètre. mais li li li ñu si war a moytu rek mooy saa buy saqati nga bañ a génn sa. ñu ngi ñu ñëwante. xam nga tubaab yi léegi sax du ñu ñëwante. bépp bi rek bépp bi. ëppale ëppale waaw mën na mën na ko joxe. parce que même wax nañu sax ndax moo. xam nga waaw nañ jël si ah. lislaam day wane ne booy booy béy sa gannaaw càmmoñ loxo càmmoñ. xam nga loxo bi nga nuyu nii na foofu sa loxo càmmoñ waaye. xam nga fekkee setale sa sa yii. nee na bu ko laal wëlbatil wér gi. bu ñu wax naan nañ soree. damaa defe ne ñi tëkkute masque at. waaw am na laa ngir bañ ma lor la waaye bu ñëpp tëkkee masque mën nañoo jege te du wàññi dara. waaw dama ne ko bu nit ñi bu nit ñi bëggee sorante. boo mutul bi commencé màggal. boo mutul Ndakaar la ñuy yem. si mu tax a ngi dégg na. waaw bu tey rek dafa rey dafa rey. waaw mais nag bu ñu takkee masque mu mbax la. parce que nit ñi am nañ am nañ éducation laa bëgg boo xam ne ne. tey jii boo doon ci soli doo ñëw ci soli si kanam. li tax loolu yomb ci mooy. mbirum docteur moom dañoo judd rek xam ko. macha allah yàlla dawal si émission dafa def ko fonkoon docteur. moom bi ngay gonee rek ngay tàmbali gis ni mu fonke docteur yi di diisoo ñoom bi wax ñoom lu waay lu dal waaye rek naa la yóbbu ci docteur. jënd ordonnance dafa am da ko man da wutoon pharmacie ci biir. daf koy boite fu nekk garab ga garab ga fa ne. ak la muy nañ koy naan. Mm-hmm. waaw tax na. Mm-hmm. <laughs> wilaaya wala wala cër wala ak teel bi moom la mu ne. dem Sëñ Tuubaa te noonu dafa ko dëgg Moussa Malick wax wax ci am solo yoo xam ne daanaka yi war nañu ko dégg <laughs> ci mag yi toppoon sëñ bi da mu ñëw fa muy waxtaan di ko laaj sëñ hmm, am ci mag moo xam ne day waxtaan ak moom gis sëñ bi fonk docteur lool mun nga ah man de fàkk da nga ngaa fonk ah, ci ne mun nga ah damay sëñ bi mu fonk doon docteur te yéen da fonk docteur lool hmm. man ngaa sëñ ba nag moo daa wax ak jàngoor yi na ko daa jàngoor bàyyil diw mu ba ko kooku mën na ko bañ a fonk ndax jàngoor ji lay waxal ne ko bàyyil diw mu génn ci waaye dagam gisatuñu te mënuñ lool mooy ma jàpp ci dox loolu njàng mu xóor la moo xam ne mu réer réer réer pas-pas lañ ko def. moom kay dañ ko def. da ko génne rek rek jàll man gis naa ko Dakar laa ko jot. gis nga ko moom xam nga bi ma ko yónnee. bi ma ko yónnee. waaye waaye waaye nag man hmm. jàpp naa ne léegi lu mot a baxal la. masque bi ñaata yoon la ñu war a takk ñaata waxtu. moo tax man. fóot bi sëñ bi moo moo tax moom bëgg ñu ñu def promotion. suñu bopp masque yi ñuy defar yi. di ko fóot. xam ne dañ koy mën a fóot. bu ñu ko defee nga fóot. Eh, màggal naa da nga am jënd fóot. waaw bu amee ñaar baax wala ñett ci biir sax bi nga fot baax na. parce que yii parce que yii. trois heures de temps yii a yàq yii trois heures yii trois heures ah, la lay may nga door ko benn masque. waaw bu nga fóot. nga yii fóot daal ba amee ñett. te kii mënoo koo fóot parce que kii produit moo tax xam nga bële tissu la. boo ko jëlee da ngay day delluwaat fi mu delluwaatal. bien que nag bon. tissu bi tissu bi dafa am tissu yu ko mën a yu ko mën a. waaw ñu gën a fermé moo gën a baax. coton mën na ko waaw waaw coton mën na ko. waaw waaw da ngay gën a fermé waaw ñu gën a fermé.